peut-être dafa ànd ak euh, accusation technique hmm. mhm. accusation technique weesuwul euh, nga wax ne ki nga xam ne moom lañu jàpp tey hmm. euh, muy Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté man dama ko sax suñu baay ak suñu maam kaddu yu mu yëkkati loolu du da ko teg ci Ousmane Sonko mais da ko teg ci senegal yëpp parce ku jub ku am éducation de base am éducation morale da ngaa éviter façon bi ngay communiquer surtout mom lu gatt gatt masna na am ay ndomol tànk ci réew mi mu bokkoon ci ñun jox confiance bu démé tay bay communiquer autrement man damay japp né dafa def erreur de communication légui nak justice bu ko wooyee Ousmane Sonko yoram nekku ci. Bassirou Diomaye fay yoonam nekku ci parce que justice bi nekkul fi Ousmane Sonko président Ousmane Sonko seulement ak président de la République mais dafi nekkal sénégal yépp ku deful yoon ci réew mi muy man premier ci man muy Moustapha Diakhaté muy yow mi toog yoon de la wala woo def enquête dal la li tax li nga def li bu dee c'est une violence verbale mu xam ko mm-hmm. bu dee c'est une violence morale mu xam ko bu dee da ngaa jàdd yoon mu xam ko mais terme bii nga xam ne moom la wax du terme ay terme bu ñuy négocier hmm. man dama jàpp ne terme barbare la hmm. wax dëgg fa yàlla parce que Pastef parti la comme parti yëpp te wax jee fi ne rek mais amugul benn parti bu gën parti Pastef pour l'instant hmm. question ne dama nekk allié ak Pastef rek moo tax may défendre Pastef wala may défendre président Ousmane Sonko <laughs> mais may wax te yàlla tax fii toog naa fi ay jours yu ay at ci ginnaaw di wax ne ñoom Moustapha Diakhaté yi fi nekkoon di jiite réew mi ni ko doon jiite teguñu ko ci yoon. Mhm. boobu soo ko dugg kaso am na benn moment dugg na koso kon tey mag boo demee ba ñu lay xoolee bëtu doyen da nga war a jomm yenn acte de communication yi parce que loolu sax day indi problème man dama bëgg su ñuy wax Ousmane ko nañ ko wax ci côté réalisation ci côté programme ci watu leen ak leen mais ngay wax Ousmane Sonko di koy classe ci autrement hmm. te actuellement nañu xam ne président Ousmane Sonko ak président de la République Bassirou Diomaye Faye dañuy doog a démarré hmm. xam nga ñu doog a démarré dèjà am na li fi nekkoon bloqué lépp raxas nañ ko dèjà di si gërëm di si sant sénégalais yi hmm. jël seen décision delloo ñu ensemble parce que dañoo am confiance si président de la République Bassirou eh, Diomaye Faye am confiance ci premier ministre Ousmane Sonko man mi di wax yow ni dara funkuma suma àdduna mhm. du ma ànd ak nit ci ay kessaw kessaw duma and ak nit ci intérêt personnel mhm. la preuve ko que ma ci ñuy daw ci président de la république wala premier ministre ngir poste wala ngir lima lek wala lima nan je ne suis pas dans ça mhm. xam nga li mbeugum moy naka la def pour liguel Sénégal man candidat la won élection présidentielle y passé madame numéro 169 dama retirer sama lëpp bàyyi sama lépp dem ànd ak président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye rien que rek pour ñu xool naka la ñuy développer Sénégal wallaahi kon tey bu dee ku lu waay neex def lu waaye neex def ci réew mi man de mënoon naa génn fii léegi ci plateau Sénégal cinq dem taxaw ci dëgg dëgg ne képp ku fi taxaw ma rey la mais bu dee police ñëwuma fekk fi ma toog mu mën a ma yóbbu ma enquête xool ndax man defuma li tax ma def noonu mais la mooy njëriñu police. lan mooy njëriñu gendarmerie. Hmm. lan mooy njëriñu yoon. mais loolu lu si yoon Ousmane Sonko ne président Ousmane Sonko ne président Ousmane Sonko man mooy mooy nit koo xam ne nii seetlu naa ko lépp lu waay def ci àll ba lu ñaaw teg ko Sénégalais yi yoon ñëw taxaw rek. Hmm. nga ne président Ousmane Sonko la. man hmm. naa am sax ba ñuy jàpp Moustapha Diakhaté mën na am sax président Ousmane Sonko yëgu ko wala si presse bi la ko jógee <laughs> mais gëm naa ne man maa la ko fi gëmm naa ne wallaahi dama naa ko sa waat. gëm naa ne du président Ousmane Sonko. moo jël téléphone am woo justice ni leen dem leen fekk kër euh, Moustapha Diakhaté ngeen jàpp ko man gëm naa loolu gëm naa ne Ousmane Sonko def loolu. Hmm. man lu laa gëm de parce que Ousmane président Ousmane du ñàkk ne sax mi ngi seetaan. mais gëm naa ne loolu du ko def. mais ñu si jaaxal mooy Ousmane Sonko nee nañu yëpp dafay euh, euh, na ñëpp quand même. mais xam nga xam nga Ousmane Sonko lépp day dakk xam nga hmm. la bëgg wax day dakk hmm. mooy ah yoon adduna kii euh, Sénégal dañ ko teg ci yoon li bëgg mooy ñu teg lépp ci yoon. maanaam violence verbale bi dafa takk effectivement violence morale bi dafa takk effectivement ñëw def lu la neex wax lu la neex ci réew mi mais effectivement dafa takk yow mii boo doon jiite réew mi da bëgg loolu doo bëgg Sénégal nekk ci ay tolof tolof doo bëgg Sénégal nekk ci ay problème mais presse bi nañu wax dëgg presse bi am na site yoo xam ne nii ak ay télé yoo xam ne nii seen xol lan moo ci nekk mooy président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko daaru loolu mooy seen problème ni échec ni am luñu ñu wax mais dañu waxante deug rek man man na la du ma sa damay damay bañ togn wa Sénégal 5. mais mënoon naa toog fii cité ay presse yo xam ni ay nit yu ko jiite seen intérêt ak seen vision lan la mooy fexe ba am ba créer problème président Ousmane Sonko. Hmm. wallahi hmm. la preuve année que même gagné bi nga xamné mom le pasteur Pastef sax sen xol yi at dañuy nek tout temps di tek ay stratégie di tek ay démarche rien que pour Ousmane Sonko di xëy am problème nañu xamné président Ousmane Sonko. ak président Bassirou Diomaye Faye hmm. yàlla moo lañu ci teg ñu ko accepté tuuti ñu nekk ci leneen xool ñu ñëpp ensemble naka la ñu développé Sénégal mais Moustapha Diakhaté lam wax li lam hmm. def li hmm. man ne personnellement su ma nekkoon ministre de l'intérieur wala ma dëkk wala ma ma ma nekk commandant benn brigade si wetu këram dinaa ko woolu dem enquête lu tax mu teg euh, lu ñaaw li ci bopp sénégal yi man Vieux Thiam. Hmm. voilà alors exactement Abdou Sàng bëggoon na euh, répliquer rapport ak ay kàddoom. effectivement effectivement bien. Ah, man aussi je dois <laughs> Serigne Serigne ah, dama dama dama c'est-à-dire que euh. xam nga euh, président Vieux bu nee parti gisul parti bu gën parti Pastef. sama gis-gis la. mais Sénégalais yi lay seetaan. Ah. bu ñu lay seet bu ñu lay déglu. Uh-huh. dañ naan mais Vieux mi fan la newoon avant 2024. Vieux mi fa la nekkoon ba ñuy taal université. Vieux mi fa la nekkoon ba ñuy taal Oceagne. dañ naan vieux yi fan la nekkoon ba ñuy taal euh, kii yi euh, station yi. Mhm. ba ñuy cambrioler banques yi. Mhm. ba ñuy agressé nit ñi si mbedd ba ñuy cambrioler nit ñi seen magasin téléphone yeeg magasin tissu yi. Mhm. cest à dañ naan vieux yi fan la fan la nekkoon. ba naan Pastef bi moo gën bépp parti boo xamante ne ni moo fi nekk Ousmane Sonko yow xanaa dégluwoo ko ba mu nekk Rufisque. ba muy wax naan bu fekkee ne yo moom mooy kilifaay ministre de la justice ne day jox ndigal ministre de la justice ne ko toppal diw mu topp ministre de la justice woo procureur ne ko toppal diw vieux foo nekkoon Ousmane Sonko il est mêlé si lépp lu jëm si wàllum justice moom si boppam moo def aveu de taille moo ko waxal boppam du samay wax wax ay kàddoom la vieux je suis désolé mais ça li ngay wax ni beaucoup de réalité bi am sur le terrain te aussi ñun dañoo nekk fi défendre la démocratie mm. démocratie la ñuy défendre ah n'importe quel prix dañ koy défendre tey lii ngay wax nii naan dafay dakk dafay dakk dafay dakk mais Ousmane Sonko loolu la loolu doon wax naan ku defee dañuy tëj ci kaso bi mais cest à loolu noonu c'est de la dictature. nañu bàyyi nit ñi di joxe seen xalaat nañu bàyyi nit ñi di wax li nga xam moom moo nekk si ñoom ñu bàyyi nit ñi di wax seen li nga xam moo nekk seen dënn comme ni ñu ko doon defee temps wu Macky Sall amul fi waxul Macky Sall jamono jamono ma amul luñ fi waxul Abdoulaye ñëpp ah amul luñ ko fi waxul Assane Diouf amul luñ fi waxul Macky Sall ak aussi waa waa amul façon saaga ba mu fi moo Mamadou Assane Diouf kase mais ñaata ñaata ñaata nit ñoo nekk si plateau yi tey pa paale ñaa chaque jour daan def live amul lu mu daanul yàq régime bu fi jóge amul lu leen doon wax même suñu kilifa dinañ sax daal ñu leen épargne amul lu ñu déggul donc mais tey bu fekkee ne yow bu fekkee nit bu fekkee ne mën na taxaw mën a wax ne jumaa Touba am na signe franc-maçonnerie ñu bàyyi ko mu nekk ministre conseil surtout Diomaye Faye nit taxaw daal ne ñu votel euh, kii ñu votel euh, Pastef xaw ma ay lan lañ ñu bugg ko jàpp ci kaso bi dama loolu nag dëkk bi nag fi ñu toll nii nag lu ñu naan ay euh, notre démocratie est en danger ndax bu fekkee ne yow mën nga jàpp suñu sëriñ si sax wax lu leen neex dala loo si fekk wax ne Mohamed Siis roi Mohamed Siis nekk fële si Maroc mhm. ñu wax ne bàyyam papaam franc-maçon franc-maçon la woon mhm. wax ne Mohamed Siis sa boppam sax moom daanaka góor jigéen la woon mhm. nga taxaw mën a wax loolu mën a wax ne bind suñ tubaab bind sidagement yi war nañ ko mën a jubanti si réew mi di Sénégal ñi nga xam ñoom lañ gën a fonk si suñu réew dara fekkoo si au contraire nga nekk ministre di nekk si wutu jomaay fay tey nit euh, simple citoyen yi taxaw di critiquer di di di di xëy na di di di xas wala di wax ju wax ju ñaaw si kii waa Pastef ñu bëgg la jàpp si kaso bi tëj bi dama loolu man d'accord ma si loolu li ma bëgg mooy lan li ma bëgg noonu li ma bëgg mu leer li ma bëgg mu leer mooy lan euh. dañuy nekk di défendre suñu suñu démocratie la ñuy la ñuy défendre mm-hmm. te tey nañ bàyyi nit ñi ak seen liberté d'expression mm-hmm. justice nañ ko bàyyi mu def liggéeyam indépendamment mm-hmm. nañ bàyyi justice libre ñu nekk si exécutif bi nañ génne seen loxo ci li jëm si wàllum doxalinu justice man li may wax ne du samay wax de Sonko si moom ay waxam moom laa commenté li ñu naan les faits nag sont sacrés et les commentaires sont libres jërë euh, dafa ma ko bëgg euh, euh, ma ko bëgg leeral man personnellement ba fii violence yi amoon yi passé mhm. man bokk naa ci ñun taal sama alal ndeysaan bokk naa si ñi nga xam ne taal nañ suma alal lay ma barki alxuraan karim taal sumay table taal sumay banc taal suma lu ne waa Pastef non du waa Pastef ah ñu ngi doon manifester du waa Pastef non non déglu ma rek euh, dama la dama lay expliquer rek mhm. deuxièmement mhm. amul ma ma université université 2012 laa fa dugg 2012 laa fa dugg. Mhm. ma jox ko information man nekkoon naa président amicale mhm. étudiant Richard Toll yi. nekk naa président commission pédagogique étudiant Richard Toll mhm. xam naa université dëkk naa fa. ceeb yu ñuul lu ne dajoon naa ko ay jamono. lu ne dañu pour xamal ne ko man su ma toogee fii di défendre. Sonko li li nga naan nga naan ndax loolu fekkoo ma loolu effectivement yëpp fekk événement yëpp fi la mu fekk. mais dama lay bëgg xamal ne événement yi fa amoon état moo ñu ko dikkee. ak état bu mauvais mais état bii nii rek. Hmm. dafa nekk pour defar dafa doon digal Sénégal dama ñëw pour defar mais nañ bàyyi état bi defar mais léegi bu dee Sénégal mooy réew moo xam ne nii état bu jëlee décision pour defar hmm. te jubantuwul dèjà cerveau yi hmm. nit ñi dañuy yaakaar ne yow nitu ay nga. te président de la république Bassirou Diomaye Faye amul ku ko ëpp jàmm ci réew mi dañu waxante dëgg la man mi ëpp moo ko jàmm. président Ousmane Sonko aussi dafa nekk def li nga xam ne aussi moom la ko yoon may mooy lan dafa nekk di. dox doxam di liggéey liggéeyam mais bu ne problème am na rek jàpp nañ kenn rek président Ousmane Sonko la déedéet. Mhm. président Ousmane Sonko mën na communiquer à travers les Sénégalais ne li nga xam ne yoon da ko def na ko yoon dem defi mën na ñaan loolu yoon yoon bu ko demee defi nag bu leen ne Ousmane Sonko moo tax yoon def ko mais yoon dafa def liggéeyam. mu ne santaane. dégg nga xam nga Ousmane Sonko bu doon santaane. Mhm. day santaane fa mu toog leen toog buy sant du ko mën na jël téléphone wala mu def mail wala mu def message ñi nga xam ne ñooy les personnes concernées direct mais dafa ko. mais moo ko wax. déedéet mais bu muy wax dafay moom dafa dafa nekk di wax ak sénégalais pour xamal ne Sénégal bu tollee si benn étape. Mhm. ñi nga xam ne ñoo war a def seen liggéey ñi nga xam ne ñoo war a protéger Sénégal nañu protéger Sénégal man bi doon man la man ñoom laay wax. bu doon Macky Sall wala Amadou wala ku mati doon bu doon ñoom la loolu la ñuy wax kon yoon na bu jugee jël décision pour def liggéeyam. kon bu ñu ko jëlee Ousmane Sonko. Euh, Fallou ngeen baal ma tuuti rek dama koy euh, relax dama la koy laaj dama la koy laaj cinq secondes cinq secondes dama la koy laaj dama la koy laaj Macky Sall ba muy wax naan ay dafa am dossier yoo xam da si teg concom waaw fan la la fekkoon ñu avancé un peu barki Serigne Bamba am lu ma ëpp ci lu ma ëpp ci réew voilà léegi loolu naaw la ko woon lan boobu naan am na dossier xam ne si teg concom am na ñoo xam soo leen laa soo leen jàppee dëkk bi tàkk boobu wax naan ay ministre de la justice bu fekkee ne dañ ko dafa am benn man la koy jox bu man maay xool boo xam lii mën na taal dëkk bi wala mënul taal dëkk bi man du ma toog fii di wax gestion Macky Sall amul tax ah.